Thank you. Sénégal TV bokk internet yi ñi ngi fii ci dernier jour bi suba la tabaski dara lu ko ma sar xar yaangi ni ñu waxtaan ak ñu fekk ba am situation na la démé ndax ren dañoo préférer dernier jour ñoo dara lu ko ma sar ak Tëngéej kilifa gi ñu ci and ak nag euh, Grand Moulin Jarga Jarga bi mom war ngeen ko xam-xam suñ na def sa yaangi ngi maa ngi si jàmm tribunal la man abdul Abdoul Ba laa tudd Abdoul Ba foo dëkk man fete ngi euh, bi Fete fofu fo de waaw eh, da nga ñëw jaay si wala da nga fay nekk ci dara man dama ñëw jaay si xar oh. waaw da ngay def chaque année nga ñëw man chaque année fii laay tabaski fii laay jaay fii Kër Massar fii eh, kañ nga ñëw man ñëw naa depuis eh, am naa 15 jours de ba ñëwul waaw ñaar xar nga ñëwul man indi naa 300 xar ñaar nga defee ah wax dëgg yàlla compte ma xar yi waaye lii matul lii mën na cent lii lii kay motul cent ay 60 rek moo fi nekk xar yi nga indi woon ci diggante ñaata la doon varié prix yi 80 85 75. 75 waaw. ok kon daal yàlla baax na mi ngi dem daal. yàlla baax na mu ngi suba la tabaski est-ce que situation bi changé wul xar am na mu amul. gisee de nii instant bi nii xar mi ngi am de. Ah. nit yu si bëri jënd nañu. Hmm, si bëri jënd nañu. wallaay. ok hmm. léegi fi des nii yow xanaa doo ko yóbbuwaat de. no non man dem koy jaay ba mu jeex. incha allah ab tabaski yaa ngi fi ba mu jeex ab man kay maa ngi fi fii laa jullee tabaski. ba ngay indi xar yi euh, ñaata nga waxoon 300. trois cent waaw camion bi nga ko indee ñaar nga fay ñaari camion laa jël benn bu nekk fukk benn bu nekk euh, non non benn bu nekk cent quatre-vingt mille cent quatre waaw euh, ma ma ma ma ma xaaj ko si digg bi waaw euh, kon daal suba la tabaski mais yàlla baax na situation yàlla baax na yàlla baax na mun na nekk wanteen gisuñu suñu bopp nag xaw na xaw na xaw na yéex aussi prix bi baaxul hmm. wallaay dara bi fii noonu maa benn problème daral bi fi de am nañu benn problème problème bi mooy euh, euh, si ñu indé rakal bi duñu jox ok waaw rakal non non da ngay jënd rek waaw prix bi ngay jënd prix bi ngay jënd euh, rakal ki bi ci bitik yi prix yoy rek lañ lay jaay do mooy problème bi xawma ci si kaw la nek wala si da daral bi la nek hmm. waaw mais sécurité mo amna sécurité machallah allah allah waaw ak jarga bu Grand Moulin bi sàmm leen ak xel mu dal. waaw mbokk sama gaal ñu ngi ci lu Kër masaar ba léegi ñu ngi ànd ak la première militaire au Sénégal muy Grand Moulin ak jarga bi nga xam ne moom la defaral xar yi sëñ bi def. ça va yaa ngi jàmm bi nan la. man Jibi Ba foo dëkk. maa ngi dëkk Labgal. Labgal fu mu nekk. département Linguère région de Louga. Hmm. waaw foofu laa bokk. na ngay ñëw jaay fi wala nga nekk ci daral bi. non man daral fii dem ci nekk. da nga ci nekk même bu dul tabaski. non bu dul tabaski man fii laay nekk. waaw. Euh, xar yi nga yor nii depuis kañ ko yor. yàgg naa si suma loxo nag xaw nañu yàgg tuuti. Hmm. parce que mu ci xam nga bu ñuy weer koo bi jàllee. Hmm. njaayum xar bi def nakari woon lool. Ah. dañ ci gisoon métit bu xamante ne yàlla rek moo xam. waaw lu ñu ñaanoon yàlla nag xar yi yëpp jeex. parce que ñun dañuy lu ñu perte diggante koor bi ak tabaski bi dafa bëri. lan moo indi perte boobu. ah lan moo indi perte client génnagul kii nii doo gis client. soo indee xar yi dangay jënd ngooñ jënd aliment de bétail di jox compte chaque jour ay ndox ay naar ngay fay ay gardi loolu bu nga jaay xar bi kat client yoo xamante ne day ñëw di fay baat yoo xamante ne mënuñ génnal kaalis. Mhm. loolu moo doon noonu doon jàpp. léegi tabaski bi euh, da nga indiwaat ay xar wala yi fi nekkoon da nga fi bàyyi. non yi si jeekee xam nga liggéey xar suma métier la man foofu lay loolu lay yëngat njaayum xar rek am leneen lu dul njaayum xar yi si jeekee su demee suma kër noppaluwaat tuuti damay duggaat suma liggéey di jaay xar di jël àll bi di indi Ndakaaru njaay fii di jaay. di ñibbisi. jamonoy tabaski bi yow ñaata xar nga amoon man. man amoon naa téeméer xar ak kenn wàll. waaw. mais gis mag waaw amoon na yu mag am naa am naa am xar bu mu am naa xar bu mu tuddee El Hadj Diouf boobu ne boobu jarul. Mungkin itu. Apa yang kau nga yëkkati ko El Hadj Diouf wala. Elaju, Hadj Diouf footballer. Wow. Diouf footballeur. footballeur waaw moom nga ko sama gaal dina Wow. man dem ko tuddee xar bi. depuis bu mu nekk mag yi foo ko bi suma kër laa suma dëkk laa ko yaree. Labgar rek kon. kon di ñu salam Saalum lañ nekk côté Makuli Banta foofu lañ doon nekk. waaw ah, téeméer li ci des mën na juróom fukk wala mën na ko. ñi ñi nekk fii léegi. Hmm. waaw mën nañ juróom fukk. kon nag xaaj nga jaay. waaw xaaj laa ah prix yi tane nañu di kon di démb nag prix yi commencé kono taay temps yële yëpp prix bi dañ doon nakari jaay dañ doon fekkee ba jaay kono par benn benn moo doon génn waaw. kon euh, looy wax euh, loo bëggoon ñu dolli ko état bi wala ndox loo leen ak ministre bi. non damay wax ministère bi mu mu jàppale sàmmkat yi. Hmm. xam nga sàmmkat ñun amuñu leneen amuñu projet ñi ñooy suñu projet. Hmm. suñu projet mooy xar. Hmm. nga jëmbalee ñu si tabaski ñëwee nga financé ñun. ñu mën génn jënd xar yu baax indi ko teg. parce que man dugal na suma caution ci banque duñ tudd INSEC. Mhm. boo léegi xaalis gi génnagul. génnagul te ñu ngi téye suma 600000 xam nga loolu day métti. ñoo leen ko ñoo ñoo dañ ma waxoon mu dem defaan demande. Hmm. mu dem demande defoo ñu dañ ma financé mu dugal na nag yàlla xëy na man jotaguma xaw ma nag lu waral loolu kon jotaguma. kon dugal naa suma caution 600000 la ñu ngi ko téye ba léegi. xam nga taayale daal te li jant moom sabat ki bi dafa jege mënuma dem di jaabante di xacc ay yooyu damay dem rek ba ma noppaloo tuuti kii seet suma xaalis xam naa danaa jot suma xaalis. incha allah naa ko waaw. kon jërëjëf ñu ngi lay gërëm. waaw. ak bu Grand bi sàmm leen ak xel mu dal. egsi ak jàmm ci bergerie Seydina Mohamed yow mi bëgg yar ay laadum yow mi bëgg ay xar yu baax ay xaru ras ben adresse ci Sénégal ay laadum pur sang ci femelle jeune mâle wala mâle bu jaar yoon fii rek la dootul feneen fudul fii waa Sénégal ñëpp leen xa conseiller wala ku la ci yoon nga mën a am ay xari laadum yu gën téléphonel gaaw ci 76 488 50 14 wala 77 464 93 99 wala nga daagu ndànk egsi yëmbal segna garage clando ñu jox la ay xaru pur sang ay xaru laadum original fii mooy bergerie Seydina Mohamed.